naa ma leen nuyoo mbokk Ngalam TV damay daal di dalal suñu gan Maguette maa ngi lay nuyu. benn maa ngi lay fay. alors Maguette Maguette gis ni yéen a ngi waajal sargal ki nga xam ne moom mooy Siré lan moo waral sargal bi ak kan mooy Siré. waaw Penda d'abord maa ngi waa Ngalam yëpp bon lu waral sargal Siré mën naa ni xaw ma sargal lañ koy xaw ma delloo njukkal mais Siré li mu moom rek lañ koy essayé jox. mais monument la boo xamante ni bon mënuñu mënuñu ko fay ci quartier bi la dëkk juddoo fi màggee fi mais dafay fubal yemul kese ci fubal mais Siré muy man muy keneen koo waxal ku ne rek am na fu mu jaar ak yow rawatina équipe bi ba tam équipe bi ba sa musul xonq moom mu yëg ko te faju ko donc kooku ñun bu yàlla dogalee ñun ñu ñu équipe bi bu yàlla dogalee ñu dénkuñu équipe bi. ñun mënuñu fi def dara lu ñu gën a réyal ñun lu ñu gën a réyal delloo Siré njukkal ñaanal ko yàlla suñu borom xare ko àjjana donc loolu moo waral affaire bi daal waaw lu réy si ñun nag lu réy la si ñun vraiment ko kaamil waaw alhamdulilah bon ñun daanaka daaw lañ jël reñu équipe bi mais balaa ñu tàmbali suñu benn activité dañuy wàccee kaamil ba pare duñu yem nag ci Siré Kase parce que karce bi newul ni Siré Kase moo fi génn àdduna mais képp koo xamante ne rek way dawlu nga tey jullit dañ lay ñaanal ñun balaa ñuy démarrer suñu dara daaw def nañ première édition boobu noonu imaamu quartier bi yëpp ñëw ren tamit def nañ deuxième édition bi imaamu quartier bi yëpp ñëw notable yi ñëw ñu ñaanal ñëpp ñaanal Siré ñaanal képp koo xam way dawlu nga mënuma lim suma ma limee damay juum mais def nañ ko ba pare alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla nangu ñaan aussi Mm-hmm. kan ngay andal si liggéey bobu le suma liggéey bi bon xam na ni euh euh suñu sa bureau bi ñep comme de directeur bi vraiment ñom ñep ma ngi nyom ak ñom ci liggéey bi vraiment waaw mu nek uh, ño xam tane aussi tamit kenn ku nek rek yene bi ma am la ci ñep am kenn ku ne mi ngi ngir intérêt équipe bi mais aussi tamit xam nga surtout bis bi ñu nek ni amul koy dem diko sété wala koy wax ko xamanteni du bàyyi leppam rek ngir bisu Siré bi ni mu réussir quoi. su ma déggee say cadeau kon Siré nekkoon na doom nekkoon na rakk mag xarit nekkoon aussi joueur. amoon lumi muy présenté bu baax ci ASC waaw moy li nga wax symbole la d'abord symbole mom day teunk lepp waaw tam mom bu yalla defone ba ngeen def reportage ci quartier bi ci ngeen gëna xam kan moy Siré parce que man mën na ni sax touti na ci wax ci mom parce que man luma ma fekkee ci moom tuuti la ci côté bi muy football mais aussi sama xarit la won da nañ waxtan ci lu bari da nañ seq lu bari bari donc sire dal vraiment sumay waxtan ci mom bon damay xam ne ko waaw xëy na nag yàlla mën def après bu reportage bi gëna sori ñu gën ci mënu wax wala aussi yalla dogalé aussi ngeen dugg ci quartier bi nañ leen wax ci mom lu bari bari mais dal liñ mëna japp mom moy nit ku bax la won té ñëpp nangu nañ ni julit la won ku amone yermane la won suñu xer ak suñu xalaat am na rafet nañ yott bu baax que ni suñu borom dina ko dugal ci àjjana yee gën a kawe loolu ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom defal. incha allah ñaan yàlla nangu ñaani Maguette ñu gis ni dañ la fal président ASC Sirak ku ne xam na ni njiit yombul rawatina ci wàllum football te ku wax ASC wax na wetaan ndax fal boobu lay yomboon na ci yow wala. waaw man nag silaat yàgg naa fi. man maa beaucoup bokk bureau comité directeur ASC depuis 2003 mais musuma nekk euh, président aussi bon ba daaw boo gëjoon naa fi nag depuis 2014 parce que man léegi dëkkatuma ci quartier bi maa ngi tuxu Sagba mais de daaw bi aussi ñëw assemblée générale comme nous ko bépp membre di defee ambition yi ma amoon mooy jël euh, équipe bi président wu équipe donc bi ma assemblée aussi.

ku ne xam na ne ñu ngi waajal nawetaan dese dese te bëriwul. Uh-huh. ndax mën nañ xam ndax uh, am na foo ko bëgg a yóbbuwaat fu raw daaw fu mu nekkoon. waaw alhamdulilah daaw yàlla dogal na bi ñu ñëw da fekk uh, année bi ñu teg suñu ginnaaw ñu ngi yemoon quart de finale ren bi ñu ñëwee aussi daaw bi ñu ak projet yu bëri yi aussi uh, yàlla dimbali nañu bañ dem ba demi finale donc ren aussi. am nañ ay ambition ren aussi c'était la même chose biñu ñëwé di def assemblée générale defuñu vote dañu waxtaan consensus ñëpp d'accord que ni aussi nañ jiitalaat président Maguette euh, mu continuer liguey donc ma ci rafet luat encore di euh bureau bi yëpp parce que nit ñi bo leen jité ben année nga dem deuxième année ñom tamit ñu am euh, yéné ak contenté ne continuer liguey bi loolu sant yalla la donc liguey biñu tambali won woon gëm naa ni rafet na motax ñu bëgg ñu àggalew mais ren tamit aussi bo boo xoolee euh, nawetaanu pigine bon bokku nañ ci ñu yor ciowli waaw xëjna bon recrut projet yi ñu am ak recrutement yi di def mo waral loolu ñu ci ciy sant yàlla nag parce que xamna ni du lenn lu dul am ambition ambition bi nak bon duñ ko ragala wax waaw dañuy dem bëgg nañ dem ba régional bëgg nañ zonal départemental ba régional inshallah rabbi ñi ñaan yalla suñu borom agalé ñu si am nañ yéene bi te loolu mooy ambition bi ren incha allah rabi yàlla nañ ko suñu borom defal. ndax yomb na nga jiite ASC bi ak Sirath loolu de moom question boobu <laughs> ndax yomb na moom waaw su ma taxee ne yomb na <laughs> wax ju yaaxu la dara yomb si waaw quartier rawatina Sirath tamit yombul mais nag ñun ragaluñ dara waaw parce que fa lañ juddoo màggee fa bokk fa aussi suñuy waajur bokk ci ñuy sos équipe bi xam nga. donc ñun tey jii nii bu ñu xamee wala ñu mun wala ñu mun def dara rek war nañoo am sañ-sañ ñëw taxawaat suñu quartier lépp lu nga xamante ni quartier bi soxla na ko rek war nañ am sañ-sañu ak fitu ñëw pour réaliser loolu loolu moom vraiment yombul mais nag ragaluñ ko aussi ñu ngi si sant ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant yàlla quoi yàlla may nañu fit bi bon xëy na doole ji mateewu ko mais fit bi mi ngi fi waaw. parti bi mi ngi fi am nañ fit pour jiite ko te ragaluñ si dara aussi waaw loolu moom am na. damay ñëwaat ci sargal bi gis nañ ne sargal bi dañu ci def ay journée bokk na ci le 19. waaw naka ngeen bi. fii lañ koy defee si stade Alassane Djigo bi euh, mi ngi war a doon à partir de 17h 18h ba 19h ñu war ci dajale quatre équipes muy les anciens Niayes de Pikine yi nga xam ne Siré fubal na fa. moy les ñaari Pikine ak euh, ñi nga xamante aussi moy fu muy daan liggéey moy Baobab entreprise bi bobu aussi ñoom dinañ participer ci tournoi bi wa ASC Sirat fu mu dëkk ñooñu tamit dinañ ci participer mu nekk trois équipes ak wa Bolton aussi ñom it ay génération am lañ ñoo xamante ni da daan ànd ak ñom di fubali ñom it dinañ ci participer donc quatre équipes yooyu ñoy composé tournoi bi mu nekk ben ngoon ñu def loolu lepp trois mi-temps après ñu récompense dépassé ñi nga xamante ne ñoo si participé rawatina waa Baobab les anciens des Niayes ak waa Bolton. Uh-huh. est-ce que dina am ay sargal yoo ci def. si nañ ci sargal ñu bëri nag parce que aussi bis bi Siré dafa fekk ñu jagleel ko pare mais am na ñeneen ñoo xam dañ leen si boole su mel ni ay Youssou Ndoye ñeneen ak ñeneen ñu si bëri dinañ leen sargal aussi ku si mel ni Noyin Mar nga xamante ni ba mu dalee jàpp ci équipe bi démb moo ci mujj loxoom jugu ci donc dinañ ko sargal les anciens des Niayes mu nekk ay pas yoo xamante ni ay mag ñu baax lañ ñu ñu jàppale lañ aussi ñoom it dinañ leen ci sargal waa Bolton aussi dinañ leen ci sargal plus par plus particulièrement ak euh, Maysa Ndoumbe nga xamante ni amul benn taye tayel ci affaire bi lépp luñ bëgg rek boobu ba léegi mi ngi si ñoom it dinañ leen sargal ci bis bi incha allahu rabbi bu mu jógee ci sargal bi ñu gis ni euh, tirage yi génn na. Uh-huh. nga bokkal pour. waa tirage yi génn na suñu poule je crois su ma juumul Siraat la Cité Esat jant bi euh, Pastef ak Gunay Zeng d'ailleurs je crois que Gunay Zeng la ñu am suñu premier match incha allah. Hmm. la kañ la. bon amagul date. Uh-huh. ñu gis ne euh, nga nekk njiit te ASC bi teg si ñu am lu ñu dégg que ne da jënd ay joueurs yu bees. ñu bëggoon xam la mooy objectif ndax manqué ay joueurs yu baax la wala bëgg dolli ak renforcer sa équipe pour mu gën a taxaw. waa footballeur yi recruter ren c'est juste ñun daaw dem nañ ba demi-finale war naa ko sànq donc comme dem nañ ba demi-finale boo gis nañ li ñu manqué am na nag lu ñu am parce que quartier la boo xamante ni jeunes yi bëgg nañ football mën nañ ko te chaque jour ñu ngi si mais aussi day toll fu nga xamante ni ci football da ngay xool li nga manqué nga dem uti ko dolli ko si. donc loolu rek lañ def dañoo dem euh, ci yeneen quartier yi ak yenn équipe yi championnat yi dem xool lañ fa manqué waxtaan ak ñoom convaincre leen indi leen suñu quartier pour ñu dooleel. Mhm. toll na si ñaata joueur bu ñu ko xaymaa ñaata joueur. actuellement nii nii presque ñu ngi ci ay onze yi nga xam kenn dëkk fi onze personnes onze personnes yoo xam te kenn dëkk fi aussi. Mhm. objectif bi lan la jël coupe bi wala dem demi finale comme da wala romb ko. wa waxon nako sank leg la koy gëna ñëmé wat wax ko objectif sera ren jël zonal la jël départemental jël régional waaw lool moy suñu objectif inshallah rabbi inshallah kon dal wa Siraat mën nañ xaar ci yow. euh lu raw fi nga leen yóbbu won daaw tamit fexe bëgg nga wona tamit lu tamit reccu wuñu lu le fait que ñu far la.

loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. en tant que président yéen bi na trop est-ce que am nga ñu la dooleel wala am na ñu nekk sa ginnaaw di la jàppale. waaw mooy li ma la sànq déjà man ñi ma bokkal ànd ak ñoom di liggéey muy bureau bi hmm, ñoom ñëpp bu ma limee damay juumee ñëpp ay jàmbaar lañ donc ba un si aussi yàlla dimbale na ko aussi am na ay doomam yoo xam te nekkatuñ fi ñu ngi bitim réew ñii fubal nañ fi ñii mosuñoo fubal mais yàgg nañ si def seen doole. te yàlla dimbali na ma aussi dama am ay relation ak ñoom yi nga xamante man du ma ragal dara ci équipe bi lu ma yóotu rek wala lu ma song rek man damay bàyyi ba ngoon ma toog sama kër waxtaan ak ñoom wala ma gis ku mel ni grands affaires yi ñu toog waxtaan ñu contacter yenn grand yi ñoom heure bi stop ñoom ñu régleel ñu liñ bëgg vraiment ñu ngi sant waa diaspora bu baax di leen gërëm amuñu seen fay di sant grand xalifa gay bu baax di ko gërëm amuñu fayam moom it vraiment bokk na si ñi nga xamante ni xam bu suñu bët xonqee moom it mu taxaw si vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla taxaw ko defal ko jàmm aussi. damay ñëwaat ci joueurs yu bees yooyu lan ngeen di xaar ci ñoom ndax am na ñu ñu fi dañoo fekk si aussi ay joueurs du caagi ni ñoom dañ leen a dàkk dañ leen a gën a mën li ñuy def tax ñu jël leen indi leen si bi lan ngeen di xaar ci ñoom. waaw footballeurs yi moom lañuy xaar si ñoom d'abord mooy ñu ñëw ak discipline. xam nga euh, ak volonté li si des mbiru suñu borom la condition yi leen war a teg pour ñu nekk pour ñu performant dinañ leen ko fa teg liggéey bi ci war pour ñu performant dinañ leen fa def dinañ leen ci teg li si des nag mooy ñoom ñu respecté li ñuy def am ci fulla ak fayda euh, lu leen seen borom may rek ñu jël quoi ah. mais bu neexee suñu borom lépp lu nga xam te ni ñoom war nañ leen ko defal comme condition pour que ñu performant incha allahu rabbi dinañ dajale tout les moyens pour que ñoom ñu nekk ci condition yooyu bu neex yàlla. ñu gis ne ren da ngeen def ay shooting dina ay maillot yu bees ubbi boutique fan la boutique bi toll ak lan moo ko waral ndax ma génne numéro siraat la wala. waa si effectivement xam nag mooy li ma la wax bureau bi ñu ànd bi ñu nekk ku su mel ni Ibra Bey ñu koy wax boos mu nekk booy boo xamante ni ci quartier bi la nekk mais mun naa ne du nelaw du yendal du fanaanal lépp mooy xool lu mu créer ba lu bees am. déjà mom yoy non yëpp mo ci dox mo ci nek def sutinam xam nga créer ay mayom bon effectivement ñi ngi ci projet ubbi boutique pour que boutique boobu noonu dañuy servir lepp lu nga xam tane ay accessoires lo xam tane ne mën nañ ko jaay supporter yi ñu def ko fa ñu def ko fa pour pour diko diko di jaay quoi déjà ñi ngi ci vente de moyens yi moyen sans dépend amul prix mais moyen bi gëna moyen cher moy bi nga xam tane moy xalé day jar 3000 francs ak moyen supporter bi nga da fay jar 5000 francs mais le reste moyen mën nañ ko jaay ba cent mille francs ça dépend ci personne comprendre waaw ñu noonu yéen kon ñun waa déedéet du ngeen jaay da ngeen ñuy indil kay ñun kay duñ jënd dañuy xaar suñuy mayo incha allah dama ñëwaat si match yi hmm. ñu gis ni euh, premier match bi yaa ngi am ak Gune Zeng hmm. ñu gis ne Gune Zeng moo mujj sa kaw ren lan ngay xaar lan ngay indi tey pour mën pour mën gagner Gune Zeng waaw d'accord effectivement Guney mo moo mujj suñu kaw par demi-finale lool c'est vrai mais aussi Seraat aussi nek na équipe bu nga xamanteni ni mën naa ne équipe euh, aussi tamit yabu ko donc quel que soit alpha bon match lay don ma suy profiter ci occasion di suñu sen président Rama di wax ni match match lay don match de faire play lay don inshallah rabi que le meilleur gagne mais nak Seraat moy ñëw mom waaw Seraat moy ñëw te Guney Dieng bon xam ni mom ci Seraat la soxé ko siraat dina ñëwaat daal te daa soxla nag ren ji incha allah rabi. voilà jàpp ngeen ne daal. siraat mooy ñëw daal mooy ñëw. moo mën say nga daal rek. waxuma loolu ah mooy ñëw. ah <laughs> mooy ñëw ça veut dire que ni kon jàpp ngeen ne kon yéen yéen mën ah, zeng. waaw non siraat xam nga siraat dafa nekk équipe bu mag bu yàgg. zeng buñ bu ñu amee ay anciens bañ dem bañ laaj leen dañ la xamal ni ñoom siraat lañ bokkoon après ñu créé gunóor zeng donc bu siraat ñëwaatee xam nit moom limu moom bu koy jël jël si. warna na mun jafe warul mun jafé donc nañ xamné rek sirat soxla warna té dina ñëw inshallah ren ji dina ñëw inshallah bu neexee suñu borom baana inshallah alors président damay tej té bala ñu tej bëggon na nga ñëw ci mu yo xamanteni mom ngay tëjee yo xamanteni bëggon nañ la ko laaj te laaj ñu la ko. waaw lu may tëjee yoo xamante ne peut-être mënon na bëggoon naa question yi té xëjna na ñëwul mooy. Euh, dama si mën a njëkkee rek euh, d' abord ma nuyu suñu anciens yi parce que dama laa sànni siraat équipe bu yàgg la mais ñi ko sos ba tey ñi ngi fii nii te mu nekk ay mag ñu nga xamante ne ba démb démb dañ si ànd ak ay mag dem am lu ñuy dox ci mémorial Siré bii nii mu nekk ay mag ñu nga xamante ni euh, vraiment ñu dañ leen sant parce que nii nii may wax ak yow lu équipe bi soxla suñ leen woowee dañuy bàyyi li ñuy def ànd ak ñun ànd ak ñun doxal ñu ko donc ñu leen sant bu baax. di ci gisal ku ñu wax suñu nijaay muy Djibi Kandji père Adama jara grand Aline Fall euh, père euh, El Hadj Souré uh-huh, ñoom ñooñu ñëpp ak euh, per Mame Cheikh su ma limee damay juum mais daal ancien Sirat grand Baddo Belgique grand Sike Ndiaye États-Unis démb lañ mujjee déggante vraiment man ancien wu Sirat ñoo ma gën a yokk fit waaw su ma déggante ñoom dañ may ñaax di ma yokk fit pour que ñu àggale liggéey bi di woo nag.

xare ko àjjana ñu yàlla bàyyi ñu fi ñu yàgg leen la ñaanal ñoom it di si woo waa Pikine yëpp di si woo famille Youssou Ndoye famille Siré di si woo bépp doomu Siraat aussi ñu ñëw teew ci bis bi le 19 incha allah à partir de 17h fii si stade Alassane Djigo donc loolu mooy tàggatoo bi di woo ñëpp daal di si woo waa Ngalam TV ñoom it ñu ñëw couvrir ko bu neexee suñu borom incha allah. incha ñu ngi lay remercier bu baax Maguette. batay suñu plateau ginnab bi ma dalalee ma ngi fi am Mondoy Mondoy bokku ci membre ASC Sirat Mondoy ñu bëggoon xam kan moy Siré. bon ma ngi nuyu ñëpp ah. di nuyu ASC Sirat di len sante di len gërëm ko di len remercier aussi yene ci initiative bi ngeen am ci memorial Siré bi quoi Siré nak nit ku extraordinaire la nit ko xamni waron xol fi Pikine do gi ah ci sama xalaat man doo gis ku mel ni moom quoi nit koo xam ne la deful dara muy dara jàppe jàppewul àdduna ngir kër li mu am mi ngi koy yéene ak nit ñi di ko bokk ak nit ñi nit ku respecté nit ku gëm boppam nit ku am volonté ci li muy def bëgg ASC bi nag muy ASC Sirat doon ci def dërëm ak ñaar dërëmam lu mu am Sirat ak ko gënal muy nit ku baax nit ku baax nit koo xam ni.

Siré doo doo ko gis sax ci yenn yu négatif mosoo koo gis mu baal yi man bokk ci li ma xam mosoo koo gis mu def loo xam ne lu négatif ay nit nag daan na leen dimbali ci alalu boppam lu kenn dul yëg Pikine gii tey boo doon xool mesure parti ñu bare am na ci ñoo xam ni bu ñu waxalee seen akulaay taala rek am na loo xam ne ñoom ak la woon ba ci réseau bi am na ñoo xam ne man maa ko boole ak ñoom ñu koy jàppale ci réseau bi muy génnee ci ña xam di leen fay ba ñooñu ba fi may wax yow nii ñu ngi réseau bi. te loolu ku bax rek ko nit ku bax la siraat mom wax deug yalla duma ni dootuñu amati ku mel mais dana jafe lool ndax cas critique bu amé buñ ko mësaan na fëgg du ci boolante wax day génnee li mu am joxé kon loolu tay buñ koy defal témoignage non Sénégal gépp war nañ cee ñew Pikine surtout aïssé Sirat lu ñu jàppoon war nañ ko bayyi le jour yi ñu ñew dolel ko ànd ak famem wané ni Siré lim fi lim fi doon def ba léegi mi ngi fi sax te loolu du mës a dañ parce que nit ku baax rek am na ñu fi jaaroon mais li ñuy defal nii Siré ñooñ sax moom moo leen di yóbbaale ndax baax gi mu baaxoon ak actif bi mu actif woon ci AIC bi nit ku hors pair ko ah di ñaan yàlla fa mu nekk yàlla xaaree ko àjjana te yéexee ñu quoi nit ku amoon fulla nag am personnalité gëm boppam surtout gëm boppam bi parce que fi mu jógee métti na ba fi mu ñew ni tay ba ni ko yàlla jëlee mu gëm nak gëm yalla pire waaw nit ku bax nit ku bax ngeen koy defal mémorial ren moy ñaata at euh, ngeen ko koy defal. waaw mémorial bi bi moy deuxième fois daaw moo doon première édition bi bi moy deuxième édition bi ñu ñaan yalla ba fi ñu fi nek chaque année ñu koy rendre hommage parce que d'habitude defal nañu wàccee kamil dimanche bële passé. ak mbooleem jullit ñi nekk ci quartier bi bokkoon ci ac bi dëkk fi ak ñoo xam ne ay jour la ñu woon newoon ci ay ci kii AIC bi décédé ñu wàcceel leen kaamil mais mémorial bi moom c'est Didier Assiré parce que loolu la gëmoon ci ci ci ci kiyam quoi waaw di leen sant tamit di leen gërëm di rafetlu trop seen initiative merci beaucoup yow tamit Mourou Ndoye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ginnaaw màgget mi ma dalaloon suma plateau di leen wax ni ngalam nii la koy defee ci ASC yëpp dina ñëw seen kër ñëw seen koñ waxtaan ak président yi wala présidente yi incha allah di leen jox rendez-vous ci beneen plateau.